yemb yëpp pour ñu dem ñëw na waaye yàlla dafa dogal monsieur le maire yegg si ci jotaay bi comme ni ñu leen ko waxee. di lu am solo moom dafa ñeme ñi mu yilif ñi muy yilifit ñeme ko macha allah moom dafa jàppe boppam meeru Thiès yëpp te loolu dafa am solo lu nit ñi nekk mu ngi ci lu nit ñi di sonn nit mu sonn ca ànd ak ñoom macha allah. su ñëwee maa ngi maa ngi koy présenté rek mënuma tënku naa ci say kàddu d'accord bismillahi rahmaani rahim. Uh-huh. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu jégalu rek ci yéex a ñëw bi. Uh-huh. mais ci suba bu lee ñu ngi ak téléphone bi. Uh-huh. di jokk ak uh, yaay nday mële. mu ñuy wax fu ñu toll pour ñu mën a yegg si. bu la bàyyi ci mairie. mais wax ji daal mooy Eh, ñaan rek la mhm. borom subhanahu taala mi dara tewul mhm. damay wax ni eh, ci ponk l'islam yi ñuy wax juróom yi bii mhm. eh, rek lañ ci teg condition ci boo ko mënee donc dañuy jàpp ni rek woote borom subhanahu taala rax na ci ndaxte tey man nga yell demu nit te yow sa bos du yem donc ñuy wax ni am na lu ci waaw am lu ci borom subhanahu taala dugal donc ñuy wax ndeel na ngeen dem ci jàmm ak salaam lim bi ni mu yeggee ak bépp sénégalais bu ci bokk yal na lim bi dellusee noonu euh, ci euh, barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, lii ngeen di def nii du du caaxaan moo tax it dañuy wax ni am na ko may wax ni démb màkka du soppi nit ma ne ko day soppi nit kay mhm. ci boo bëggee soppi ko dëgg fi ngeen jëm nit bëgg na faa dem am alal te tegu fa tàngam kon mhm. bu yàlla defee ngeen dem fa bu ngeen dellusee fii incha allah mhm. yàlla na lépp lu doon ñuul ci kenn ku ci nekk. Mhm. ci barke seen axamat na set wecc. lii daal la ñëwoon dinañ ko ci ñaan. dem ak jàmm ñëw ak jàmm ak salaam. Ah, ah. te lim bi ni mu demee yal na ñëwaatee ni bi. sallallahu senegal wa jiite association jàngalekatu alquran yi muy union des daara école arabe Sénégal ñoom mi moom it ñoom ñëpp imam Abdoulaye Diagne wax seen tur monsieur le maire Aline Sow maire de la commune Thiès Ouest ñëw ci turu maire Pape Diop Est. ci turu euh, Lamine Diallo Nord ñëwit ci turu maire de la ville muy Talla Sylla ñëw wax ci turu maire yëpp waaye amit nag xam naa ni tey li ma ko wax ni ko sa agent daan na dem waaye nag tey sa agent sa xarit mu doon ko ñëwit doon ko gunge si kon ñu sant ko baax gërëm Lamine Gueye su ko defee rek ni ko Oustaz Abdoulaye waxe kenn ku ne nag nañ ñu may lenn mooy ujaaj yi ñu may leen ku ñu rappel ba jox la sa passeport nga dugg ci kaar bi ñi nga xamante ne am na ci oto yoo xamante ni dinañ dem lu mel ni waa Saint-Louis seen oto yi dañuy dem kon ñoom it ñu jël position rek nga xamante ne bu ñu demee li waral ñu bëgg lii mooy su ngeen ñëwee topp leen ak seeni oto it ba àggi du bari njariñ du bari njariñ ndax du ngeen dugg kon pour yombalal leen ngeen def tàggatoo beeg ñoom fii xam naa ne ni ko Alaaji Idrissa daan waxe naan soo joxee ñiy jooy jooy du tee ñay dem dem ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla nangul sant bu baax waa jumaa ji muy masjidu taqwa nga xamante ne moo na fii waa koñ bi bin fi dëkkee ni am nañ ay dëkkuwaay war nañ fee def néegu yàlla muy masjidu taqwa bii di jumaa ji yàlla def ñu jël ñu teg ñu ci seen kanam kon ñoom it ñu sant leen ak imaam yi nga xam ne ñu ngi taxawu liggéey bi yëpp ndax ku ne xam na ni dañu fii ne sax ab diir du ñu jiite su àjjuma jotee imaam yi taxaw rawatin ak jamono bi nga xamante ne nekkuñu fi kon ñoom ñu ngi taxaw ci biir activité jërë ngeen jëf. Adja Ndeye Awa Diouf waaw am na ñoo dugg leen rek ñi war dugg ci gaar bi Adja Ndeye Awa Diouf Adja Ndeye Awa Diouf <laughs> waaw madame la a waa kay jaar nañ taxal dugalal Adja Jaara Bousso ñu ngi téyel kan laa den Elaj Medio Baskanté Elaj Medio Baskanté Elaj Mohamed Fall Elaj Farmer Sissoko Elaj Ibrahim. ak passeport dugal dugal dugalal ci biir. El Hadj Alioune Sakho. dugalal ci biir. ba seen carnet yu jaune yi këyit yooyu ma leen joxoon mu ngi ci. waaw. El Hadj Mamadou Ka. El Hadj Kalidou Ba. El Hadj Omar Dieng. El Hadj Abdoulahi Diawara El Hadj Abdoulahi Diawara ci sakos bii nga yor te nga rango rango waa Thiès Info ñu ngi leen di nuyu ak di nuyu àdduna bi ah, mu mel ni rek li nga ñu laaj euh, day mbir moo xamante ni dinañ ci sawar li nga xamante ni moo concerné agence de voyage muy presque comme voyage nga xamante ni

mais nit ñi dañuy généraliser mais li concerne presque comme voyage képp koo xamante ni ujaaj la woon muy 69 pèlerins yi nga xam ni dañoo nekk ci ñun kenn ku ne yàlla def na ni jot nga sa lépp sa passeport sa visa mu nga ca yaa ngi sa biir te incha allahu rabbi ñun ak ñoom ñooy ànd fas yéene fee jógeendoo daal di dem kon macha allah ñun suñu lépp macha allah. waaw li ñuy wax rek mooy sant yàlla d'abord. بنو يالله بوله شيء واتي بنخوا أذن في الناس بالحج يأتوك الرجال نما على كل دوام من ياتينا من كل فجنا نعم عميق كنا نيجي سنت يالله واي أجان دومبي بكامارا موي ميغا خمن تن موي PDG أو بريس كوم فياز موميت نيو سنت تكوتي كونفيانس بيمو أمتينون نقدر في جل وقما à 100% 200% لجل responsabilité اجانس بي موي نينا في موي نينا فنن لب دال كوي تكسون يلوخو كنا نيجي سنت واي سنت نك نينو دويلو بجل سيني سيني ويجول ñuy jël ñëw jël seen bopp ñuy ñuy liggéey ci société entreprise ba wala société ba wóoluñu di ñu doyloo di ñu jox seen i kon ñooñu ñëpp ñu sant leen waaye sant population cees yëpp nag ndax nag wax dëgg yàlla bay ci sawewu tànk te ñun Thiès la ñu dëkk cees la ñu am. waaw loolu am na solo parce que nag maire buñ la fi tegee dañ la fi tegal njaboot gi. kon njaboot gi bu nu amee fu nu war a jógee war a départ fu mu mën a doon fu mu war ngeen leen a saytu ba gis leen fekk leen fa nuyonteeg ñoom kon loolu bu ko defee dañ ko ciy sant waaye association daara yit sëriñ daara yit ak association imaam yit loolu mooy seen i rôle ndax sëriñ daara yi dañuy jàngale te ñoo ne ci jumaa yi imaam yi ñooy responsable yu mag yi jumaa ji ñu départ mooy masjidu taqwa yàlla def ñun ñu nekk ci bopp bi ñu doon imam bi euh, ak ñu nuy jàppale ñëpp kon fii ci Parcelles Assainies unité trois ñu di fiy départ sant yàlla rek bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man maa ngi tudd Djibril Sall bokk ci pèlerin Sayed yi bon di sant yàlla ci tawféex bi ñu defal ndax li euh, moom tawféexu suñu borom la du luy njàmbaar ak leen di joxe ci coobare suñu borom rek la. ñaan nag yàlla subhaanahu wa taala dimbaluñu bañ joxe suñu farata. te yàlla def jàmm ci réew mi danañ ko fa ñaan soob yàlla nangul ñu it te suñ ñibbisee it lañ fa doon sàkku ak yëpp yàlla su borom boole ñu ko ñun ñëpp nangu ko am yaakaar lool nag ci agence bi ndax yàlla dogal na suñ ay collègues yu demoon daaw nekkuñu woon sax ak ñii lañ voyagé woon mais ñoo ñibb si daal vraiment apprécier lool euh, waa Prescom voyage wax ñu di ay seede yu rafet te yàlla rek laal ko loolu nag moo ñu dugal ci ñoom bañ ñëwee déglu leen firndeel nañ ya firndeel nañ loolu ci wax jaak tout ñu amit ak yaakaar di ñaan yàlla na suñu borom subhanahu yaakaar googu mu mottali ko ak jàmm ñu dem ci jàmm dellu ci jàmm fekk leen ci jàmm